mbir mi acca salaamaaleykum mbokk internet yu ñuy bàyyi xel ci seen site bi di wasaare lamb ginnaaw ba ñu leen nuyoo a baax amaat mbégte ak kontaante saa bu ñuy jàkkaarloo tey ni ngeen koy gisee ñu ngi fii parcelle unité 19 ku ne parcelle nga xamante moo di dimanche da wax diggante ki nga xam ne moo di Siteu ak ki nga xamante ni moo di Papa Sow tey ñu war a daa jaamaarloo fi nga ne moo di euh, ci digg géew gi fa séene nag bëre moo tax ñu ñëw fi nga xamante ni moo di parcelle tey nag ni ngeen koy séenee sama ginnaaw ñu ngi buntu kër ki nga xamante moo di Papa Sow fa séeni nag ñëw jël li nga xam ne moo di ambiance bi ambiance bi suñu paree dak jël waa kër gi toog seetaanandoo ak ñoom lamb ba mu jeex leen yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan li nga xam ne moo di wasaare lamb eh borom boolu ceeb kaay fii ñi nga xam ne seetaan li nga xamante ne nii mooy wasaare lamb kaay ma wax la kaay kaay indi boolu ceeb bi nii ma xawoon la loo yor nii boolu añ laa yor ceebu jën wala ceebu yaa waaw waaw waaw nan ngeen di préparé départ nga xam ne moo di Papa Sow daa pare na lépp pare na kay ndam rek la ñuy ñaan incha allah waaw te nañ ko indi parcelle incha allah aca dégg ngeen noonu nee ndam rek la ñuy kii la ñuy ñaan leen

champion la góor yàlla la. waaw. tey lu rëy nag. ci doole sëñ Touba. la fa réewa deret bi la daw ñu loolu. du yàgg këf daw la. topp si mooy loolu Anaconda da koy jox victoire bi. merci beaucoup naa la bàyyi nga añ ndax xam yaa ngi tiim boolu ceeb. benn problème yaay booy. bi dañuy sant suñu waajur di sant kilifa diine yi ci réew mi yëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen sant di leen jaajëfal. waaw làmb moom préparé nañ ko dañ ciy ñaan dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin yàlla may Papa Sow jël bu set wecc. yëpp may ko ndam leer nañ waaw. Hmm. ñaan yàlla rek. moom mi nga xam ne moo yor ndam diko ko maye mu may ko Papa Sow defal ko ko xam naa ne bu ko yàlla fayee xolam rek du sonn mhm. ko wala loolu ay Papa ñun ñu ko xam nañ li mën li mënul. Mhm. xam nañ ko bu baax. dañuy ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla may ndam lu sedd guy guy guy. jàpp nga ne ah, ko Papa Sow dafa dafa yaakam di quoi waa 19 dañ koy xaar waa parcelle di ko xaar ñëpp a koy xaar fi mu nekk waaw. gëm rek gëm gëm rek gëm bi ñu am boobu ba léegi moom la ñu am te moom lañuy doxee te moom la ñuy jëmee. jàpp nañ ni fuñ ko jàpp dañ koy daan ñoo ko mën foofu waaw. loolu moom dañ koy wax muy côté parcelle muy côté jàmm gën muy fépp violence amul sens. tey jii su ma gaañee doomu jàmm gën sam bopp laa gaañ. doomu gaañ jàmm gën bu gaañee doomu parcelle doo boppam la gaañ waaw parce que tamit dañ ciy doxaat tànku jàmm rek moo tax violence beeg yooyu yëpp amul sens làmb du violence benn takkusaan la rek ñaar Papa Sow la ak Siteu mais nit des ñëpp di violence mbër mi sax du leen yëg wallaahi mbër mi sax du leen yëg. d'accord merci beaucoup. ok kontaan nañ jërëjëf. sëñ bi nuyu naa la. ñoo ngi lay la. ñoo ngi lay fay. yaa ngi ci jàmm. sant yàlla tur bi nan di waajalee li nga xamante ni moo di départ ki nga xam ne moo di Papa kon ni ñu ko doon waajal rek di ñaan yàlla suturaal ñu defal ñun ndam. incha ñaan nañ yàlla mu yóbbu kon galaas kay. Mhm. fu mu ne daal kon wan ngeen mën ngeen a war a jubile si kanam tuuti. Mhm. merci beaucoup. de rien. aja mbokku internet yi nga xamante ni yéenay suivre seen site bi di wasaare lamb gis ngeen ni ñu leen ko waxee fu mu nekk ambiance bi fi nga xamante ni di kër Papa Sow na te dara dooragul xam naa bu ñu waree def seen départ wala dem fële ca stade moom dina mel ni tuq suba bariir dina mel ni fu mu nekk nii ba ngoor manu dem stade dama naka ngay waajee combat bi yow. waaw maa maa waaw. waaw nga koy waajee. maa ngi nii waaw. mu yor pare dina yeex a dugg xaaral may leen ma tuuti rek yéen ñëpp laa jël. waaw salaamaaleykum. sëñ bi na ngeen may leen ma ma dama dugg nii wër koo xamante ni moom laa mën a jël mu wax ma ci li nga xam ne. gannaaw pardon waay s'il te plaît. may ma tuuti. sëñ bi nuyu naa la. yaa ngi ci jàmm. xoolal keneen rek. da ngaa ragal a wax. a wax te gérer sécurité. yaay baax. tur bi Mor Sarr la. Mor Sarr kan ngeen ki nga xam ne moo di Papa Sow mu war a jàkkaarloo tey ak Siteu. waaw ñu ngi nag ñu ngi koy waaj nag nànk-nànk mais gars yi yu bëri nag jiitu nañ dem stade quoi fii ñu fi nekk nii pour ñu booyee la yëngal may ko doole mooy loolu ñu génne ko mu dem combat baa ngi si tali bi ñëppay dem parcelle tey ñëppay yëngu parce que fay bëri dafa bëri quoi. moo tax nit ñi sax xawuñ bëri fii nii mooy loolu noonu mais gars yi bëri dañuy dem stade direct. nice d'accord jàpp nga bi dina yàgg diggante euh, rek xam nga magum jëm mu njool ponkal la quoi isam moom la mun boo ko bu mënul bougé bu bougé wul doo ko mun nga pour nga daan ko day xaw a métti mais pas so da koy attaqué da koy cogné da koy gagné force. d'accord lan ngay boo rek moom mooy xale xam nañ ni du ñëw. yàgg-yàgg moom di ñëw mais ñun dañ koy jëli ne Paso ku ko xool xam ne attaquant la du défenseur attaquant dafa offensif moom ni muy songee noonu la lay duggee noonu la lay dóoree mun na la daanee noonu parce que champion la quoi. loolu jaajëf jaajëf merci beaucoup yéen yéen a ko gisandoo yéen bokk internet yi nga xam ne yéen a ñu topp di ñu suivre si site bi nga xamante ni moo di wasaare lamb nee naa leen fi nga ne ni moo di kër Papa Sow dara du leen raw ci li nga xamante ne ni moo di combat bi dinañ leen jëlal li nga xam ne moo di avant combat bi waaye dinañ leen jëlal li nga xam ne moo di après combat bi xalil waa ji li mu xëpp nii lu muy nuróol xalil waa li muy xëpp yéen na ngeen def waaw ñoo ngi fi yéen da ngeen nekk si jàmm nice kay tuset yi na de merci nekk ni Papa Sow xanaa jàmbaar ji wala. jàmbaar bu rëy wi. nan ngeen di waajalee départ. non lii ñu ngi koy waajal ak jàmm rek xam nga ne bëre dem daan ñëwaat indaale victoire moom dem ak victoire ñibbisi ak victoire. billahi bi moom xoolal jarul wax wax bu bëri quoi da nga jël sa temps rek ndax bu ñu demee mun ñoo ko dàq bu bëree daan ko bu xeexee ñu ko. billahi wallahi. njool yëgul ndaama bokk. njool yëgul ndaama papa comme ndox suñ kii Siteu comme ndox su billaahi buñ ko téewee dañuy dammu faar mu bu bëree ñu damm tànk yi waaw merci beaucoup loo wax yow. les poissons gagné rek billaahi gagné rek. tous nag gañe rek bi la wala la ni waaw ñoo amul fuuf du benn du benn ñoo ko mën Siteu ñoo ko mën Siteu duñu mën day xaar d'accord d'accord merci beaucoup yéen a ko wax nee nañ Siteu moom day xaar Xalil topp ma rek topp ma ñu xool mbër mi moom génnagul jamono yi instant yi moom ñoom ñi nga xamante ne ñooy ay supporters am jamono yi moom kër gi moom neex na torop torop torop maa sha Allah waa Dakar Buzz ci lu ngeen jàmm. tur bi la. Calambert. Calambert ñu fekk la buntu kër ki nga xamante ni moo di Papa Sow muy préparé combat ak ki nga xamante ni moo di Siteu naka nga koy dundee yow. waaw mais xam nga xam nga Papa moom suñu la. te xam nga dafa Papa Papa borom baax la. kon tey yoon la tey bu xewlee. yàlla may ko rawatina bis bu toll nii rawatina parcelle ñëpp génn ko. te ñu ngi ñaan yàlla suñu borom moom mi nga xam ne moom mooy rabbi sama war fi aar moom yor ndam mu koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam kàttanu yàlla te am nañ si yaakaar bu baax a baax ndax macha allah pare na lépp ñun doon nañ dem jàpp si entraînement yi jàpp si contact yi jàpp si lépp te nag yàlla moo des. komba non préparation bi yombul woon xam nga combat dafa njëkk am reporté ba mu reporté na Papa Sow gën a nekk si entraînement yi. kon tey bu amaatee Papa Sow day gën a fonk bi te waa parcelle yëpp a fonk bis bi te bis boo demee esat ngay xam ne wa parcelle fonk nañ bis bi incha allah kàttanu dañu dem waaw mais dina egg si jàmm si kàttanu yàlla boo demee stade di nga xam ne la won wone na bee passé xam nga gars yi jëlañu woon seen matukaay mais bi yoon gars yi jël nañ seen matukaay te am nañ si yaakaar bu baax ba ñaari mbër yi amaana sax seen cumukaay mën nañ bañ a gisee kon tey làmb ji moom si kàttanu yàlla dara dara ko tere am si kàttanu yàlla waaw mais comme moom nu ko waxee rek gis nga làmb amu ay njool ay ndaama làmb la Papa Sow ñëw maanaam indi ndam Siteu ñëw indi ndam dañuy ñaan yàlla Papa Sow bi nga xam ne pare na bépp côté ah Papa Sow booy xool bëri na ku nekk bëri na poids lourd bëri na poids léger bëri na njool bëri na ndaama kon tey defe naa Siteu mii nii warul mun a ñëw déranger ñu ko si kàttanu yàlla. waaw message bu mu koy lancé mooy mu bañ a yàqamti combat bi mu cons combat parce que xam ne parcelle dañ ko yaakaar dafa bokk si lamb te lamb ji moo ko mën a indiwaat waaw kon na cons lamb ji mu bañ a yàqamte bu waree dem dem bu waree taxaw taxaw parce que Siteu mooy xale Siteu moo bëgg kon moom mi nga xam ne moom moo féetee mag te macha allah na taxaw toog si ay tàngam xaar waaw. merci beaucoup ok merci waa jaajëf. wax nga ne si Papa Sow. combat bi a bi. la Papa Sow ragal. barki Serigne Bamba pa ay bandi kese fi nekk bu fekkee ñoom ñoo ñoom waa jaamu gën tous tasar boobu ñuy wax fii la fii la buujoo Siteu moom dafa yaakaar ne pour l'instant nii moo ëpp doole saawaay saawaay mag la moom xale la de mais ba léegi mag day nooxu xale noonu la demee quoi. waaw combat bi du yàgg Papa Sow waaw Papa Sow ko du yàgg loolu du dara du yàgg Papa Sow tëf. lu ma lay fu leer laa nga teg de miis. billaay waaw na ko yàlla may ndam ah. nan la ñuy waxee Papa Sow day daan ci français. ci français. waay may ma waay miis. maaleykum salaam wa rahmatulah onze bila bisimilah inna wali maa ngi sant yàlla. matériel bu Saloum. matériel bu Saloum tey ñu fekk la fi ne moo di buntu bi xam ne moo di Papa Sow digganteem ak Siteu tey la naka nga sama kër la incha ndam rek. waaw waaw du ma daan rek. li ba neex yëpp Papa Sow moo koy def incha waaw parce que wàññi li mu war a waajee. saa yi moom am nañu ko moyage bu baax a baax am li rek dam jëli moo des. ba passé moom daa amoon erreur bu rek si côté CNC mais saa yi moom bi yoon moom incha allah léppay mat waaw dina neex dina yomb incha allah. nga xamante ni ndax. waaw bëre ndaam na takkusaan bu ne bëre nag ndaam lu des moom lu waroon yëpp def na ko entraîné na ko wàññi na ànd na ay mbokkam rek moo des waaw. waaw dara na lu ko war moo xam na ko rek ànd na ay mbokkam liggéey man équipe boobu laa nekk am nañ confiance bu baax dam jëli ndam rek moo tax incha allah waaw. ok jaajëf. ça va soxna si. lépp jaam man guy gi. guy gi tey ñu ñëw fekk la fi nga xamante ni moo di buntu kër Papa Sow naka ngay préparé li nga xam ne moo di combat. waaw comme ni ñu ko préparé rek waajal rek dem yàlla may ñu ndam waaw loolu la surtout surtout adversaire la mais jaaxaluñu ñu quoi waaw nga ne déggu ma. est lu mu indi arrangé na Papa. lu mu indi jaaj sax bu indi ci digg géej bi arrangé na Papa. Siteu lu mu def daanu man maa la ko wax fii. ma. waaw xool lu ñor bu ñoree mu dem bu ñorul mu taxaw toog sul sul ay tànkam kese ndam rek moo ko jig Papa ndam rek ok ñoo fa naa la yaa ngi ci jàmm lépp jàmm ah. tur bi nan a Mounirou Tall Mounirou Tall tey ñu fekk la buntu kër Papa Sow naka ngay préparé li nga xam ne moo di combat bi diggante ak Siteu préparé ko comme ni ko daan préparé rek ñaan yàlla xam yàlla may ñu ndam ci barke Seydina Mouhamed yàlla may ñu ndam lu sedd guy waaw jàpp daan ñibbi loolu ñuy ñaan yàlla non combat du yomb du yomb du yomb ci Siteu parce que Papa Sow liggéey na loo xam ne ne ah ñun instant yi na doy nañu quoi waaw instant yi moom xam nga dañuy xam nga dañuy ñaan yàlla rek xam dem yàlla defal ñun dem ñu daal di ñëwaat waaw instant yi xam nga ñun moom suñu xel dal na quoi. waaw bien sûr waaw bien sûr parce que bii nii bii nii gars yi dañu koy sóoraale bii i ah bii nii maanaam lépp gën a organiser wu. yaa ngi dégg ah day gën a organiser wu quoi parce que lu amoon moom xam kenn ñaanul yàlla mu amaat instant yi nag ñaan nañu yàlla xam lu mu la ñu am ndam ci barke Seydina Mouhamed te Papa Sow moom ñun instant yi ñun moom suñu ñun am nañ confiance suñu xel dal na quoi xam nga suñu xel dal na suñu mbër suñu xel suñu frère xam nga ñun am ndam na yàlla bu ci yàlla àndee ndam lu sedd guy waaw message bu may lancé boo amoon message booy lancé jëmale ko lu ma koy euh, euh, wax Papa lu ma koy conseil en tant que frère ah ne ko mu def ndànk rek waaw mu def ndànk xam nga bañ a yàqamti loolu laa koy conseillé mu def ndànk xam nga bañ a yàqamti xam nga xam naa ma bu ñu jàppantee moom ah lamb ji jeex waa bu ñu rek ah man xam xam naa lamb dina jeex waa te te dañ am ndam. bien sûr lépp la lépp la pare lépp la lépp la entraînement xam nga ci lay daaxee sax na saa waay indi xeex bu ndee xeex xoolal lu baax ci moom xam naa bu ndee xeex ah saa waay xoolal dina ko dóor xam nga dina ko dóor bënd ko jàpp ci flanc yi xam nga lu waaw tegal ko 16 daa ma gën a xam. d'accord merci beaucoup. waaw ok jaajëf xew la. waaw ñun ñëpp ñun ñëpp ñu ngi wàcc kaas wala koo waaye ñu nekk incha allah waaw wala wala Sino ang pamasaw?